pour te dire li ma la wax tey li nga ma fi indi ma tontu lu gàtt nga yóbbaale ko. Mm. su ma idalul de du deñ maa koy ñaan yàlla fëgg bopp bi. kaaris nag ay yeneen booy ak nangam nangam man seexuma ñoom dara su may rak la ñuy doon dégg nga léegi per ni ma ko waxee. Mm. ku jiitu yow la ñuy wax su ma jiitoon tey duñu wax ci man. tey ku ci amoon combat fëgg sama buntu kër ne ma dama bëgg a jàpp soo du ma xaar sax nga da nga jàpp dama ciy jàpp. mais nag su may rakk lañ kii suma mag la dara amul suñu diggante ñi ngi suñu jàmm ñi suñu salaam di bëgg suñu saison bii di ñëw mu nekk saison bi dàq saison yi su may rakk lañ maa leen boot école luñu mot faram man la fa yàlla teg ci bopp maa fa nekk mais ni ko per waxee rek bëggul guy gi rek guy gi àgg à sommet ñëpp la àgg ñëpp la te loolu mooy mooy philosophie am mooy philosophie tamit prési président man soxlaatuma sax nekk di la génn ak yooyu ay guy gi laa bëgg loolu mooy nit mais booy nañ ko xamee noonu léeg-léeg ñu jafe ni président man la àndal wala ngéelu man lay àndal te barke alxuraanu karim man ngéelu mii combat bu jotee ba combat laa koy gis te combat ba combat xuloo la ñuy def man ak moom billaahi wallaahi taalaahi tele laay waxee day ñëw des fois ma rek mu mer mais yu mel noonu na ko nit ñi xalaat mais day def ni man ñu àndal jiilwaat tamit noonu per noonu maanaam da ngeen di maanaam dañuy def ni man école bi ñoom dañu maa teg ci kaw te dina ma faram barke alxuraan combat ba combat te combat liñ ci juwoo maa moom bëriwul boo non force da ngay liggéey da ngay def nangam liggéeyal nee lii lii lii loolu mooy nit man xam naa man li may servi mais ñoom fausse information mooy nekk ci ñoom guy gi lu wax bàyyi lii wala dafa nangam nangam dafa moom école du noonu man moo tax yu bëri sax dama ci dugg. guy gi tax nga def benn sortie. Mhm. nga wax ba ne lu la waaye def dina ko gis lan moo la naqaroon ba nga wax ak moom. comme lan waa def comme non loolu waxi la rek maa mooy man ñëpp laa yéen jàmm mais tey ku ma jug jéemal ma tamit sa bopp lay këpp waar rek parce que sa bopp loolu def naa loolu Olof moo ko wax. foofu non loolu moom àdduna fii ñëpp fi lañ ko teg fi lañ ko fekk loolu dafa am mënul ñàkk. mais lan nga loolu dama ne loolu waxin la rek waxin la quoi wax naa ko ba ma waxee laa ca pare ku def guy gi xam ku deful guy gi xam nga. mais en tout cas daal li la man a wax daal mooy. ñëpp laa yéene jàmm ak salaam en tout cas daal amul leen loo xam ne dinaa ko regretter sama carrière am naa nag samay business bopp yoo xam ni mun naa tey xëy xëy fekk pël bu rafet mbala ko wax ak moom loolu waxi àdduna la mais lu ma moom nañ xam ne guy gi moo wax ci naturel mais leneen la moom ay wax yi comme sànq bi bi waxee mën na ko non bul bul bul dugal ak affaire loolu mënul ñàkk waxtaan la kon fekk sama waxtaan bopp mën nañu waxtaan fii ba suba kër gi yëpp ree mais li ma moom loolu moom sa question déedéet bi maanaam moom buntam moo ibbeeku loolu ñi xam làmb boo ko laajee ngaylum père moo tax père Pambaay dinañ la ko wax loolu loolu buntu buntu làmb Siteu la buntu làmb Siteu la Siteu li ko booleeg moom jom examen ak xaalis mais parmèse yi bokkul ñi ma daan Siteu daanagu leen yi ma bëree combat yi Siteu bëreegul ak ñoom déggoo li ma la wax jom ak xaalis ak ak ku am coow ku ma mën indiwaat Siteu moom mën indiwaat ñu xam ne guy kat est-ce que guy gi mal animaux blessé bi ñu waxoon moom la wala guy gi kat yàqu na wala yàquwul te bi may bëre moom man xam naa ne indi na doole indi na musique te loolu moom ma ci gën te nee naa la maa ngi wax wax bu garaaw keroog bi ma ko ma daan man la Siteu daan boo ko daanul 2018 bi 2019 boo ko bëggee daan di nga sonn loolu te lu garaaw nag laa la wax lu garaaw laa la wax indi na doole mais daf fekk nag man ma triple ko liggéey loo xam ne États-Unis man ñi ma gis États-Unis xam li ma doon liggéey xam ni combat bi ba ma ko yoroon combat combat contre Tafatine du ma daanu contre Boña du ma daanu mais loolu mooy àdduna man combat yi ma jël yëpp damay woo Mor Fadam bu ma ko woowee fekk jël naa ko ba pare mais bala maa tontu def 5 minutes. télé laay waxee cinq minutes su ma waxee du wax lu leer naan ah comme que jël nga ko ba pare kay nañ ci ma xam ni li ma jël baaxul mais yi may jël woo ko ne ko jël mooy moom sax mooy xëy carrément ne ma li ma gis baax na kon defe naa ni yu ma doon jël yu bëri du ma ci ànd ak euh, euh, pour jël kilifa mais dinaa ci waxtaan ak nas waxtaan ak Mor Fadam waxtaan ak son mag ñu nu jëlal waaye des fois nag maay dugg ci yenn détails yoo xam ni ay détails guy gi ba tey duñ taay rek di la laaj sa diggante ki nga xamante ne mooy Sakho Dior mm. ndax coow li bëri na wax ji bëri na.